leen di tey di la 30 août 2021 euh, xam ngeen ko seen plateau JDA maanaam lépp lu jëm ci wàllu wàllum làmb ji ci revue bi ci journaux yi li ñuy def nag mooy ginnaaw bu ma leen nuyoo ba pare bàyyi leen ngeen dem seetaan wala ngeen déglu li nga xam ne moom la yëglikaay yi indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah. lundi 30 août 2021 ni ñëw ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey moom xëtamu njëkk la mu ca xëy wane wala këcc xëy gën caa fees moom moo di yaxi jub yi ki ni ancien roi des arènes ba mu taxaw ak ka nga xam ne nag moom moo di ndem si yàlla sax Habib Thiam mel ni ki nag ab torofe la koy jox Habib Thiam nag nekkoon na fi ministre ci jamonoy ab Abdou Diouf wala sax premier ministre waaye Yékini wala boog yëglekaay ba la mu xëy di topp moom moo di Yaxya Jóob Yékini ma nga xam ne 1992 la entamé la nga xam ne moo di carrière ba na nga xam ne noonu la carrière ba jeexee maanaam ci atum 2016 yëglekaay bi xëy na tey toppal ñu ko mel ni ki nag yëglikaay bi na benn sampion boo xam ne maanaam daal bu exceptionnel boo xam ne wane na boppam ci côté yoo ko jëlee rek wane na ne champion dëgg la jaar jaar jaar yoo xam ne daal yu leera leer la ci làmb yëglikaay bi ñëw na ci moom ci koo xam ne daal bu bëggee dëgg-dëgg la ko commencé ca baasul fa nga xam ne fa la commencé carrière yëglikaay ba dikkal nañu ci loolu ak itam na mu xëyee ñëpp doon ko xaar ba mu waree dugg ci làmb nag ndax la mu wane woon ba séréer si jàpp kii champion bu mag la war a doon Yékini xëy a xëy bàyyi fa écrit séréer ca jamono yooye daal di ànd ak ka nga xam ne moo di Amadou Kati Diop ba mu ñëwee Ndakaaru Kati Diop formé ko ci écrit ba nga xam ne moom moo doon écrit Ndakaaru ba mu xëy tey dégg ca roi des arènes maanaam tamit yemu ca am ay titres yoo xam ne gagné na ko ci lu jëm ci wàllum ay lu jëm ci wàllum international moo xam ci Afrique la wala feneen ak feneen yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ay distinction yoo xam ne gagné na ko la jàpp ca atum 99 ba jàpp ak itam at yooyu nga xam ne at yooyu yëpp ni nekk na ko la nga xam ne nii moom moo di capitaine équipe nationale maanaam sunu làmb daal tey Yaxya Jóob la ñu xëy tey toppal ñu ko fa mu commencé ba nii ak kase ba nga xam ne njëkk na koo fayeeku ci làmb mu toll ci six mille cinq cent francs yëglikaay ba xëy na tey dikkal ñu ci toppal ñu tamit ay way juróom ya nga xam ne ñoom ñoo di ay way juróom moo xam way juróom mu góor la wala wu jigéen ca la nga xam ne ñoom lañ daan yëngatu bokkoon na ci way juróom wu góor na maanaam daan yëngatu ci wàllum yor daara wala boog daan jàngale alxuraan waaye way juróom mu jigéen itam daan na yëngatu ci la nga xam ne moom la ñuy wax wàllum lakk ay jën maanaam defar keccax mel ni ki daal Yékini jaar-jaar ba loo ci mën a dégg yombul waaye nag fa mu mujj daal ah daa mel ni ku nekk daal boo bokkee ak moom wala nga bëgg ko wala nga sax nekk nit danga kontaan te fa nga xam ne fa la mujje yëglikaay ba xëy tey ñëw toppal ñu yaxey jóob ni koo xam ne nag ni jamono ja nga xamee ne bëri na ba masta daanu ke ko njëkk a daan mu mel ni muy moom mooy Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi dikkal nañu ci Balla dalal ko Balla nag mu nga wax bay joxoñ ka waxal nag moo di bombar Bombardier nee na Bombardier day la mu ko dara def nee na lel na dong la jubbanti ko maanaam ba pare maanaam duma yu metti te du ca yem ak moom bu ca jógee lam ko cay tegal moom moo di daan ko jël bu réy réy réy lool lool lool loolu daal moo di waxi Balla Balla Gaye numéro 2 yemu ca nee tamit France ga nga xam ne fa la nekkoon daal lam fa doon def bokk na ci wàllum MMA ay contact ak lu jëm ci wàllum boxe Balla nag ne na ci formam bu mu ñëwee ba tey amu ci lenn loo xam ne ni ñàkk na ko ci wala mu perte ko moom Balla Gaye numéro 2 yëglikaay ba tey moom moo xëy dalal ko muy wax lu yaatoo yaatoo yaatu ci yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb ba tey yëglikaay boobu ci sunu làmb ca kaw xëtam wu njëkk am na koo xam ne wala ñoo xam ne tamit daal maanaam saa yu nu xëyee rek ñu ngay gën di yokk seen groupe ba wala seen ànd ba association des jeunes lutteurs te mobile jiite leen mel ni ki nag maanaam démb wala boog ci fan yi nu génne daal ka nga xam ne moom moo di Boy Faye daal la ñu jël nommé ko nag mu nekk vice président chargé bi nga xam ne nii daal moom moo yore wàllum lambi simple jë moom daal lañ ko nommé mel ni ki nag booy Boy Faye la moom kontaan na ca ba wax ca mbégteem ndax daa jàpp ne lit simple bi gars yi boolewuñ ñoon leen ci dara kon ne na tey lu mel nii moom su amee ba pare moom mu nekk capitaine équipe nationale ci wàllum lambi simple ji ne na daal xol bu sedd la ca am mobilité am mu mel ni loola kontaan na ca ba wax contentement yemu ca ndax nee na nag ñoom lambales daal seen association bi dox daal la ñu bëgg ngir intérêt yi lamb wala intérêt yi mbër yëpp te itam tëjul kenn seen por yemu ca nee tamit bis bu ñu toogee ba gis beneen association wala geneen kuréel goo xam ne moo gën seen bos seen bos gën koy dox nee na kon bu keroogee dañuy bàyyi sunu bés te dem fekki booba ndax nee na ñoom la leen ñor moo di liggéey ña nga xam ne moom la leen ñor moo di seen gox mooy waa Pikine Nord yëg likaay bi ne na daal mbër ña dëkk ca localité ba ndax fan yi génne génn ku ne dégg na coow la fa amoon ci wàllum ay xeexoo ci ay kayit ca meeri ba ba tojante ay bopp portante plainte ak ay deret yu tuuru ba tëj kaso am ci mu mel ni ki nag mbër ya moom wane nañ leen ñu nga joxe loxo mu mel ni ki daal ñoom la ñu bëgg a xamal waa gox ba wala autorité ya nga xam ne ñoo fa nekk di bu politique daal xamal leen ne fii moom moomu ngeen ko te itam nag li am ba des fii ñi fi nekk bennoo dong la ñuy def ànd bokk ndey bokk baay yëglikaay bi dikkal nañu ci aw foto mel ni ki nag leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci loolu mooy tontu du forox olof a ko wax ndax booy géey daal maanaam moo xëy di tontu ka nga xam ne moom moo di capitaine ma nga xam ne am na lu mu ko diggoon mel ni ki nag booy géey tontu na ko ba mu saf sap yëglikaay baa ñëw dikkal ñu ci lu mel noonu moom sunu làmb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamb ca tuus ya la ñuy dem Balla Gaye tamit daa mel ni daal taxawaay ba Siteu am ca jàmm gën am ko ci fa nga xam ne moo di localité ya ko wër muy Kër Masar caaro yak fu mel ni kii noonu ci wàllum ay pompe ya nga xam ne ñooy nga ci ndox ma mu di leen ci jàppale Balla Gaye de daal daa mel ni mbir mooma sedd na ab xolam ba mu ngay félicité ka nga xam ne moom moo di Siteu ci yëglikaay bi ca biir tuus ya lanu jote boobu xibaar bu nu jógee foofu nag dañuy dem fa nga xam ne moom moo di les arènes les arènes tamit di beneen yëglikaay boo xam ne ci làmb rek la yëngutu xëy na dikkal ñu ci Sa Thiès nga xam ne daal yëglikaay bi daal dikk tey ci moom ci Sa Thiès moo xam ne combat boo xam ne dañ ko ko doon doxal mu doxoon ci digganteem ak Reug Reug ñu fayan ko ca ñeent fukki millions mu bañ dem jëli combat boo xam ne vingt million la ca fayeku digganteem ak Moussa du samay wax nag yëglikaay ba xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mel ni ki nag kon Sa daal yëglikaay na force staff la wala boog arti si yëglikaay ba daal moom moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne mu ngay wax yore wàlli lambi simple ja muy may wala boog lambi dóor ja nekk premier vice président wu see muy may sa Ndiaye bu may sa nag la mu xëy di wax daal dalal xel ya daal la xëy tey di ko def maanaam daal ci validité wu contrat yi nga xam ne daal moom mooy am ci saison prochaine yëglikaay bi xëy na tey dalal ko may sa di dalal xelu gaaye keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi xëy na wan ñu ko mu bëree ba bàyyi làmb muy Tyson yëglikaay bi ne daal Tyson ndax moom ab vrai sportif la wala simple businessman la ndax nag Tyson dañoo seetlu ne daal loo ci mën a dégg moom fan yii day wala boog weer yii sore na lamb ja bu baax a baax a baax yëglikaay bi xëy na tey daal toppal ñu Mohamed Ndaw moomu toppal ñu daal laajal ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki daal tey seen tey yëglikaay bi xëy na tey dikk ci moom leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci muy atum 2020 vingt 2021 ay xale yoo xam ne tamit daal loo ci mën a dégg lamb ji bu amee ay VIP ñoom tamit daa mel ñu nga topp ca tànk VIP yooyu di dem maanaam ay xale yoo xam ne ñu ngi wane seen bopp yëglikaay bi toppal ñu seen ab ka ca jiitu ci lambi dóor ji ci ci yooyu di ay espoir mooy caatu Daouda Fall mi nga xam ne moom lañ nomine meilleur lutteur ci wàllum espoir yi ci wàllum lit avec frappe bi yëglikaay bi di Les moo xëy tey dikkal ñu ko caat nag la munu xëy wax moom caatu Daouda Fall nee na li am ba des daal lii li muy wane rek mooy daal ñoom daal ni ñu jàpp wala boog la muy wane daal mooy làmb ji kon yemul daal ci VIP yi kese ñoom xale yi tamit ñu ngay bay seen waar bëgg a yegg fa VIP ya yegg meneen caat moo xam ne yaraax la dëkk moom itam moom moo jël deuxième caatu yaraax lii ñu ko def muy deuxième bi daal ne na ah, ah lu koy encouragé la keneen koo xam ne ñettali place ba la nekk muy ka nga xam ne moo dëkk ca jàmm gën muy Liss njaago nee na tamit moom kon lii daal bu ñu ko defee ñetteelu mbër bi maanaam moom kon erreur daal waratu ko def ci la nga xam ne moo def ci carrière am ñeenteeli place ba ka ca nekk moo di Kaaw Gourdin Kaaw tamit daal nee na lii yëpp daal dana gën a tax daal ay ambition ci làmb mu gën koo yokk maanaam daal mel ni kon daal les arènes tey loolu la ñu xëy andil ñu ko maanaam bu bëggee dégg-dégg daal caatu Daouda Fall caatu Yaraax Liis Njaago Kaaw Gourné daal espoir u yi daa mel ni ren ñoom ñooy ñi ci gën a fës ñoom ñooñ nag am na ca ñoo xam ne daal boo bëggee dégg dëgg ka di tàggu ka leen yore boog di leen se moom moo di As Cissé moo xam caatu Daouda Fall la moo xam ka nga xam ne nii daal moom moo di Franc sax tamit donte bokkut ci rang booba waaye ñii ñëpp daal As Cissé moo leen di menacé yemu ca tamit moom as mooma moom mooy menacé ka nga xam ne nii moom moo di le roi des arènes di Modou Lo yëglikaay ba moo xëy tey ñëwal ñu ci lu mel ni ki noonu keneen ko xam ne nii moom ren saison ci wàllum lambi simple ji daal daa mel ni doxul benn participation la am benn tor wala boog benn participation ba mu jot a def daal pas de trophée daal la ñu yëgle ba xëy tey wax amu ca benn ngañaay boo xam ne jëlee na ko ca muy pakala moom les arènes pakala nag nee na daal su wàccoon lu bari ci lamb ji nee na kon doon na gagné trophée yu baree baree bari waaye nag la ko teree wàcc mu ngi koy leeral nee na du lenn lu dul daal combat bi nga xam ne am na ko ci lambi dóor ji moo ko teree wàcc nee na loolu mooy li ko freiné moom pakala loolu la ñu xëy tey dina ko wax fa nga xam ne moo di les arènes waaye bu nu dellu see nag fan koy tëjee tey moom moo di ah sunu làmb mu dikkal ñu 97 ba 2016 jub Jóob ni ay photo yoo xam ne ay image la yii mu ngi ca ànd ak ay promoteur moo xam Gaston Mbengue la ya ca des ministre des sports di mataar Ba ya ca des docteur Alioune Sarr mi jiite woon làmb ji ya des mook rëg-rëg ak Modou Lo ya ca des mook Lac de Guiers wala Boy Niang yëglikaay bu xëy na tey dikkal ñu ci ay image yooyu muy image yoo xam ne yu rafet a rafet a rafet la mel ni kon daal Yaxya Jóob Yékini parcours ba mu def loo ci mën a dégg am na solo loolu nag li koy maye mooy buy neex nang ko gere ndànk waaye bu mettee tamit nanga muñ te defe naa sax jëkk mettit mujj neex day gën a wóor te yax yu jub yi ki ni boo toppee parcours am loolu la mujje naqar waa njëkke waaye boog wala boog mettit ba moo njëkke waaye fa mu mujje mooy bànneex kon daal àddina muñ daal la yàlla waxoon rek noonu na way muñkat yi laa àndal yàlla na nu yàlla defal nu am ay xol yuy mën a muñ lu metti jërë ngeen jëf euh, kon dégg ngeen yëglikaay yi li ñu tey indil ñu ko muy sunu làmb muy les arènes mu mel ni kon daal am na solo wala boog amati na solo tey ci altine ji ñu ñaan jàmm rek ah li nga xam ne moom lañ duggaat muy semaine de travail yàlla nañu yàlla defal ñu liggéey ci jàmm ku ci nekk la nga yëngutu rek mu yokk ci biir semaine ba nga yëg ko waaye tamit di rek li nga xam ne moom moo di coronavirus bi yàlla dàq ko du ñu tey ci di ko ñaan ndax nu gën a mën a nekk ci ay activité ndax loo ci mën a dégg activités yi nam daan demee am na lu ci xaw a sooxe te loolu li ko ni mooy feebar kon yàlla na fi jóge ak jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag altene ji yëglikaay bi di suñu làmb xët mu njëkk la mu ca gën a fësal tey wala ka ca gën a fës moom moo di li ngeen ko gisanoon ci photo bi le grand champion Yaxya Jóob ni moom moo gën a fës foofu gis nga ko mu yëkkati loxo ba di reetaan ànd ak kan si yàlla si Habib Habib Thiam moom ngeen xam ne nekkoon na fi premier ministre ci jamonoy Abdou Diouf mel ni àddinaa ngi nii Yaxya Jóob Yékini le grand champion ah ba mu commencé la la ko yëglikaay bi topp 92 ba 2016 fi mu jeexale carrière gis nga loolu ñu koy jox mu di ko teel di ay distinction yoo xam ne am na ko ci biir carrière yu bare bare bare ki ko doon jox tey nekkatu fi yàlla na ko yàlla yërëm muy fa Habib Thiam nekkoon ci gouvernement wu ci gouvernement wu président Abdou Diouf mel ni kon Yaxya Jóob Yékini tamit baasul la carrière ba débuté yaa ngi dégg eh, mu mel ni koo xam ne jaar-jaar bu am solo am na ko macha allah comme ni mu wax léegi rek àddina moo mel noonu maanaam euh, des fois nit ñi déparé ci nii gi ñax bari na ak ay sàkket waaye fa ñuy mujjee dina doon foo xam ne ñëpp dañ leen di ñëw wala ku leen gis di leen di di nga kontaan boo xamee fa ñu jaar li koy waral nag moom mooy ñu yar la fi ñu la war a yare def ci yow éducation de base loolu dafa am solo yaakaar naa ne yii kii nii boo toppee tey ñu ne la way juróom bu góor am na jàngale alxuraan way juram bu jigéen daan defar keccax yal na ko yàlla yërëm jégal ko ah ba gis nga tey te dem na benn moment boo xam ne xam naa ne ah mujj na fu neex a neex daan na gis doomam di kontaan lool parce que tamit am na loo xam ne vraiment ku ko dund ba yegg fenn fi dina am solo yi kii nii ci biir carrière bi fa mu commencé lamb ji di baasul wane fa boppam hmm? wane boppam wane boppam ba ñëpp wala boog séeréer si jàppoon ne kon écurie séeréer lay dem bi mu ñëwee Dakar parce que boobu écurie séeréer ku ne xam na ni mu meloon ñoom Aline Diouf nekk fa ñoom Manga ak yooyu waaye ñëw dakaar bi sax la indi mu ñëw Dakar bi dama naan bokk na ci Amadou Kati Diop mi nga xam ne moom moo formé woon écurie Ndakaaru nekkoon écurie Fass bàyyi fi ñoo formé écurie Ndakaaru gis Yékini drapeau chef de l'État ah xamal ko ne ko yow mii de champion nga war a doon ànd ak moom ñëw dakaar formé ko ba mu nekk roi des arènes kon kat itam jaaraama ko war a wax waaye yaxa itam jaar jaaram metti na ndax kuñ ne la premier kaseem 6500 francs lañ ko njëkk a fay te mu jëne di faye ko ay dizaine de millions ci làmb nekk idol gañe ay trophée lu ne mu gañe ko wane boppam ah ça veut dire que nekk capitaine équipe nationale entre 99 ba 2001 ah dem ba nome ko meilleur lutteur de l'Afrique yooyu yëpp am na ko fii CEDEAO hmm? maanaam daal jaar-jaar bu bu riis riis riis loolu nag li koy indi rek moom mooy boo ci tolloo di wuti dara danga koy gëm rek da nga koy gëm te liggéey te noppi moom nag ko xamoon na ko ci loolu macha allah ndax man mi di wax ak yéen li may wax wala na dëgg day tungam sedem maa ko fekkee damaa fekke bakkan lay laaj yaxe jub yi gi ni man daan naa ko fekk stade Assane Diouf jamono écrit Dakar boobu ñu ngi koy boobu sanc bi ñu ko sancee yàggul moom Cheikh Mbaba boobu moo newoon tête de file bi ak yeneen i mbër nekkoon fa ma ko fa fekk ak ñoom amadu Kati Diop boobu Yaxa Diop yi ki wax dëgg yàlla ñi ko xam bareegul woon waaw wala ñuy dund làmb piir ñoo ko xamoon euh, kon fi mu mujj tey macha allah am na solo ñu koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndax tamit royukaay la si làmb moom Yaxya keneen koo xam ne yax Yaxya bi mu nee ci parcours am ba kenn mënu koo daan moo ko daan muy Balla Gaye 2 yëglikaay bi war nañu Balla Gaye noonu waaye Balla nag du wax yàlla du yax la lay du yax lay waxal moom Bombardier lay waxal ci corrigé gi mu ko nar a def ak daan ko nar a daan bu nag moom mooy jubbanti ça veut dire que làpp la ba nga jubbantiku ah ñu ne déet ne waaye nga boole ci ak daan ko ne lii la ko nar a def moom Balla moom décision boobu la jël jëmale ko ci Bombardier te yemu ca ne na ba mu demee France MMA baag bokk subaak yu jëm ci ak ay contact na yooyu la fa nekkee woon te ne na forme mu fa jëlee ne dara dañu dara dañu ci kon ça veut que moom ah daa fi mu jëm ñeme na fa mel ni Balla Gaye nag ah yaa yéen a ma gën a xam ne Balla moom ci làmb communication wu làmbam maanaam diggante ak adversaire am du ci seddal dara ci wax bu jotee yaa ngi dégg te itam li may wax rek wax naa ko fi waxati ko fi mook Bombardier kenn mësu leen a jox ci da di arrière man de mësuma koo gis te defe naa ñiy suivre làmb mësuñu koo gis kon ñooñ bu dajee xaw ma kuy xaw ma kuy lappaate xaw ma kuy jubbanti xaw ma kuy daan waaye xam naa daal combat xalaat naa ne jël bu rëy dina ci am yàlla nañ ko fekkete tal ko bii yoon moom ah wala bii nii jëlli bu rëy dina ci am de Bombardier daanoon na ko nag ca komba bu njëkk ba ñu jëmaat si combat Bombardier nag daan nekk combat mbër boo xam ne nii li ko yëngal li ko yëngal bariwul de ndax fit waa bari na lool te itam ñu mën a la muy def waaw loolu moom lu leer nu ñëpp mën a seede la Balla itam kazalika nag noonu mu mel ni kon ñaar ñiy daje mën nga ne ñoom ñaarayam kiif kiif <laughs> waaw yàlla nañ ko fekkee te tal ko combat boobu leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na tey din ko yëgal mooy Boy Faye mi nga xam ne moom lañ moom la association des jeunes bi mobile jiite nommé nag vice président chargé de lutte simple booy fay a ngi noonu moom lañ nominé nommé ko ko euh, bërki démb ah wala démb du moins laaloo ci mën a dégg daal ñoom jox nañ ko euh, bànqaas boobu ngir mu yore ko waanaam la wàlli làmbi simple ji mu représenté leen ci biir seen association boobu nga xam ne moom la les jeunes lutteurs taxawal mu mel ne nag ñun lañ leen di wax daal mooy a ah, yal na leen yàlla taxaw les jeunes lutteurs parce que tamit euh, nit ay nit bu ñu gisee war nañoo mën a ànd te bu ñu àndi mu jur njëriñ dañoo war a ànd te yàlla tax te ànd te yàlla tax yàlla ko digle kon defe naa seen ànd boobu bu dee yàlla rek a tax ngeen gis ne war ngeen mën a ànd ngeen di ànd am naa yàqi ne war ngeen ci mën a am résultat incha allahu rabbi ndax yéen ñi fa nekk ñëpp ku ci ne am nga ambition am na loo bëgg booy fay itam mu ngay wax contentement am kon ñun loolu lañ leen di ñaanal di ñaanal bépp kuréel bu mën a doon rek buy yëngutu waxuma sax làmb mais fépp fu waay di yëngutoo moo xam kenn nga wala nga ne ci kuréel yàlla na kuréel boobu dem ba la tax ngeen sanc ko muy njariñ ngeen gis lu ci kawe seen jort loolu la ñuy ñaanal képp ku mu mën a doon ah booy fay ñu koy bëggee bu baax Serigne Sira moom suñu waaye la <laughs> maa ngi koy bu baax booy fay di la nuyu di ah, tamit leen loo xam ne daal gis nañ ko muy lu rafet aw photo ngi ngeen koy gis mbër yooyu ngeen di gis ñu joxante loxo noonu Pikine Nord lañ dëkk ginnaaw sakaas toj ya nga xam ne ak yàq ya nga xam ne amoon na ca mairie ak gaañante ba ah ba tojante ay bopp am ca yaakaar naa certificat médical génn fa ba jàpp am ci ah am na kuñ ci téye su ma jumul moom mooy euh, chargé de am na daal lu mu doon ca maire ba moom jàpp nañ ko ndax dañ dafa am ku mu dóor jàppal bàyyi ba ay yàqu-yàqu am fa mu mel ni ki nag mbëree ñoom wane nañ ne loolu waruta am ci seen secteur wane nañ tamit fii bennoo fi war a am joxante loxo bokk ndey bokk bàyyi te effectivement noonu la war a demee defe naa ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite muy les autorités rawatina les les autorités locales yi nga xam ne tey ñoom ci seen ay élection la ñuy jëm <clears throat> yaakaar naa ne du xeex bi wala waxante lu ñaaw bi mooy tax déedéet pour man politique ngir nga ut li nga soxla ngir nga am li nga soxla du dangay wax sa adversaire wax bu ñaaw wala nga di ko sosal non non mbir mi nañ ko teg ci am ambition wu defar gox bi boo amee ambition wu defar gox bi waa gox bi xam ne am nga ambition bi ndax nit ñi kenn mënu leen a nax gox bi ki fa dëkk gën leen a jege waa gox bi di dox ci soxlaay gox bi kooka du bàyyi bay laaj a mairie doog a taxaw déedéet da cay nekk avant waa gox bi dem ba xam ni ah hélas mi mérito na jiite Passy ñu ne noonu ko dénk Passy parce que saa yu waa Passy gisee xëyee gis ko bu naaxee ñu gis ko bu naqaree ñu gis ko bu ndox taayee ñu gis ko bu lu xew waa Passy gis ko kon ëllëg moom bu toogee dafa bëgg a jiite kay bu keroog nañ ko ko jox loolu est ce que jar xeex jërul xeex ku wulu sa bopp looy xeexee mais vraiment man des fois dama naan politiciens yi xamu lu xew te jamono ji ñu nekk nii nga xam ne prix yi yokku na. ah ceeb bi seer na diw gi seer na meew saabu lépp yokku na pour man ci yooyu la ñu war a gën a concentre wu xool nu ñu def ba daare yooyu ñu jéem ko wàññil Sénégalais yi alléger ko pour nit ñi mën di am lu ñu lekk ak lu ñu dunde au lieu que ñu nekk fi di xeex di waxante ay wax yu ñaaw buñ ko deful ca mairie ya ñu ngi ko def ca plateau tele ya wala ci studio wu rajo ya loolu amul benn sens amul njariñ nañu xam ne que yéen ñi ñu jiite ay nit ngeen jiite yéen ñi laaj baat bi tamit ab ay nit ay nit ngeen di laaj baat nit ñooñu nag ay nawle lañu comme yéen ngeen jéem a teg mbiri ci siraatal mustaqim lu ci waay man ah ci jàppale sa gox nga di ko def te yàlla tax man de du ma di ko wax c'est à lee muy def c'est bu rafet la de te lee ku ne war na cee roy waaw waaw defe naa ne moo tax Balla Gaye 2 tamit euh, ratewul cible ma ndax félicité na ko te loolu moo way mooy li am solo nit ki boo gisee muy def lu rafet bu ngeen bokkul gox même bokku ngeen secteur te nga gis ne lii muy def am na njariñ ah am nga war nga ko mën a yëkkati sa boo ko mënta woo téléphone itam war nga wax bañ dégg ko te Balla wax na tey ci les arènes ci sunu làmb di féliciter Siteu te bërki dem man dem naa jàmm gën loolu am na solo trop macha allah ah defe naa yooyu la ñuy xaar yooyu la ñuy xaar mais pas ay xeexoo ci ay vote ak yooyu ay kayit ku ne mbir mi nañ ko teg siraatal mustaqim ku ne fa nga dëkk droit ya nga fa am ñu jox la ko bu vote jotee nga dem voter soit sur neex parce que mbir mi noonu la war a demee adversité bi jarul saagaan te encore une fois yéen ñi ne ci pouvoir beeg yéen opposants yi bàyyi leen ci xel loolu te xam ne askan wi ngeen jiite seen i nawle lañu te nag am na loo xam ne nii olof na na bët burusul toj waaw bàyyi leen ci xel de suñ fi jógee dañuy dem tamit fa nga xam ne moom mooy les arènes Sa Thiès mi nga xam ne yëglikaay bi dana ah gis ngeen ko ci xëtam mu njëkk dafa bañoon 40 millions ci digganteem mag rëg-rëg nangu bëre 20 millions ci diggante mag Moussa Ndoye yëglikaay bi sax bu laaj ah nee na xanaa loolu kon euh, Sa Thiès la force la la la force d'un staff et d'une stratégie waaw moom daal sunu euh, les arènes moo dikkee tey ci mbir moomu loolu nag ñoom ñoo xam parce que olof nee na sëb la la ko bënn nga ca biir waaw am na loo xam ne daal euh, xëy na buñ ko laajee Euh, ka nga xam ne nii wala ña nga xam ne ñoom la conseil ñoom ñoo ciy gën a mën a wax euh, un sportif nag des fois mu jiital aspect financier des fois mu jiital aspect euh, sportif loolu lépp ay choix la ñun nag xamuñu ban choix moo ci am waaye loo ci mën a dégg daal noonu la demee ba tey bu nu continuer sa Ndiaye gis ngeen ko tamit premier vice président wu CNC chargé de lutte avec frappe mu ngi dalal xelu gars yi ci côté di leen di jox ay assurance daal hmm? ci lu jëm ci euh, validité wu contrat yi nga xam ne ni <clears throat> moom mooy pour saison prochaine pour la saison may sa Ndiaye ma koy nuyu di ko ziar moom itam mu bokk ci ñu jiite làmb ji ah, di sunu waaye di ku baax di borom xol bu nice <clears throat> vraiment maa ngi koy bëggee bu baax may Maysa waaw mu mel ni kon daal loo ci mën a dégg ah ñu moom xam naa damaa foog ne saison bi tey bu ubbi woon xalaat naa ne ñi ji ñi nga xam ne ñoom amoon nañu ay dat ba ba ñu valider seen valider seen date yooyu yu mel ni ki noonu contrat yooyu bu dee ci côté boobu la xalaat naa ne yooyu la ñu war a woon njëkk a valider pour ñooñu ñu ñu xool nu ñuy def bu tëgg après ñi ci topp topp ci pour mbir mi bañ am xaaj ak seen rek loolu defe naa ne noonu la war a dem te yaakaar naa noonu lay demee Tyson un vrai euh, euh, Tyson un vrai sportif ou simple businessman loolu la yëglikaay bi laaj ndax Tyson mii vrai sportive la wala simple businessman la man nag mën naa leen na sportive la sportif am nga droit def business business ça veut business liggéey la ut loo am la ut loo yëpp sa njaboot la maanaam mooy liggéey pour man waxuma nag business bu salte mais business liggéey la te Tyson ku ne xam na ne ba mu lëmu daan na wax ci biir carrière sportive am ne sport business laay def effectivement te loolu la def ndax defe naa bi mu ñëwee li mu daan décroche ci sponsor ak li ko daan fay ak li ni mu doxale ci làmb ah ba tax ñu bari mu yee leen ci làmb defe naa loolu mooy business kon moom sport bi dafa ñëw xam ne li sport la waaye pourquoi pas ñu boole ci business bi parce que tamit li tax mooy yow athlète bi boo nekk star nekk vedette war nga mën a business ci loolu parce que li tax mooy business bi mooy hélas yor na benn produit am war na ko jaay te xam na ne bu ko Tyson laale wala mu wax ci àddina yëpp gis ko kon Tyson loolu da koy taxawee loolu tam di lu am solo moo tax may wax ne moom royukaay la tout le temps dama koy faral di wax moom Mouhamed Ndao Tyson waaw lu ci mën a dégg daal royukaay la yëglekaay bi tamit ñëwaat na moom les arènes ci ci les meilleurs espoirs de la saison xale yi ndaw yi maanaam mbër yi nga xam euh, moom lañ tuddee mbër yi ndaw waaw euh, donte parce que tamit mën nañ leen tudd ay mbër yu ndaw waaye daal tànn na ci ñeenti mbër yoo xam ne ay xale lañ yoo xam ne ay espoir yu leer lañu te wane nañ ren seen bopp ci saison bi que ci jiitu nag moom mooy caatu Daouda Fall ak deux victoires mu def caatu yarax topp ca lis njaago bu jàmm gan topp ci ak ki nga xam ne ne moom mooy kaagourdin bu Dalifort mel ne ki ñoom ñii nag ku ci ne macha allah am nga loo wone ndax caat daaw dafal damay wax ne moom ah ndox mu sedd muy rey ay teeñ la ku jar a bàyyi xel la ay adversaire am ba tey daa mel ni xamaguñ ko te xale la boo xam ne man bàyyi naa ko xel ci làmb de caat daaw dafal waaw il est sérieux na dal na ni soo ko gisee si làmb di nga xam ne mbër ngay gis waaw te itam lan li mu jot def ci tournoi Idal Gningue bi lu am am solo la kon ñu koy féliciter ci loolu nga xam ne nii moom la def caatu yaraax tamit ku jara a baxel la parce que li tax kere dalal naa ko fii leen di paase koo xam ne làmbam amul caaxaan prix dip day ñëw def si li muy def moom Liss njaago tamit di xale boo xam ne mu ngi dëkk jàmm gën di di génn génn bu doy waar macha allah nekk koo xam ne mbooloo mi koy topp mbër nga bëri ay millions te mbooloo moom du ko topp. te loolu li ko wane mooy ña koy topp topp ñu ko ci ñàkk fayda mais dañu gis ne kii li muy def gëm na ko mën na ko moo tax ñu di ko topp euh, Kaw Gourdin tamit di koo xam ne li simple bi da ci wane boppam nit avec frappe bi ren mu wane ci ah. muy lu doy doy waar muy ay xale yoo xam ne daal macha allah ah bu ñu gënee liggéey gën a dégg seen staff ba nga gis seen bopp ci li ñuy def xalaat naa ne ëllëg mën nañoo yegg fu sore sore sore sori fan kay jeexale tey nag moom moo di paka la mi nga xam ne nii ren benn participation la yaakaar naa am ci lutte simple bi su ma comme ni ko yëglikaay bi waxee waaye def itam amu ci benn trophée moom nag nee na li ko yóbbeloo lépp ñàkk participer beeg ñàkk trophée yi ne na euh, baam bi nga xam ne moo ko moom la waroon bëre muy lutte avec frappe bi moom moo ko forza moo ko freiné waaye ren su participer woon comme ni mu ko bëggee woon nee na kon doon na gañee ay tournois yu bare bare bari moom pakal waaw nag su ko waxee dinañ ko gëm ndax ku ne gis na ne at yi passé euh, ni mu ni muy wanee boppam gars yi demoon nañ ba gisa xawuñ ko mu xawaraar waaye dikkaat na ci at yi ñu génne di wane boppam di gagné ay tournoi moom paka la muy boo xam ne macha allah ku a bëre la champion d'Afrique la lutte avec frappe tamit wane na ci lu am ful la fa nuy jeexale wala boog fa mu koy tëje rap mooy image yooyu ngeen di gis ah yax yu bii kii ak ay photom ak ñi mu nekkal ñëpp yéen a ngi koy gis noonu hmm? kon gars yi loolu moo fi di konte ci yëgle yi dama leen di jox dig daje ah dama leen di jox dig daje rek suba ci beneen sideya di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen leen wax ne nag ah ngeen jàpp ko hmm, Babacar yaakaar naa mosu ngeen dégg ma wax suma anniversaire waaye bi yoon nag dinaa ko wax parce que tax ma di ko wax mooy euh, ki nga xam ne nii wala ñi nga xam ne ñoom ñooy sama ay soxna ñoom ñoo jàpp dat ba ñoom dañ ma dañ ma sax bett waaw dañ ma bett parce que man bàyyi ma ci woon xel ndekk ñoom bàyyi nañ ci xel rawatina ku mel ne aram hmm, vraiment date bi nekk le premier kon di mercredi kon noonu la fa demee waaye am na koo xam ne moom vraiment aw ma fayam ndax teel na participer mala boog teel na ci moom teel na ci jàpp moom nag ba ñuy ah, ba ma koy xam du tey ah bëggul sax ma tudd turam waaye waaye su ma xarit la daal maa ngi koy nuyu bu baax a baax yaakaar naa cadeau ba mu ma jox moom c'est autre chose waaw moom daal jox na ma affaire bu doy doy waar boo xam ne nii daal. ah jël na téléphone bu seer a seer a seer jox ma ko kon yàlla na sa jàmm yàgg barke yonent bi sa alayhi wa bëgguloo ma tudd sa tur maa ngi lay bégg di la ñaanal jàmm waaw borom Dubaay borom Siin ah foofu laay yem parce que bëggul ma tudd tur wi kon gars yi di leen jox dig daje rek suba incha allah rabbi yàlla na jàmm yàgg. attention Jackson daanu